allo allo suma mbokki Gambien si ak suma am di jàmm yi ak ñi ma déglu si dëkk bi ak bitim réew man la Samsudeen Sarr ma delloo si waa tey di talaata ci ñeneenti fan ci weeri mai 2021 waaw tey nag moom xam naa ne dégg ngeen yu bari about li xew démba waaw démba yàlla def na man dem na ma dajeeg toog ak Adama Baro muy président réew mi waaw bi ma toogee moom waxtaan nañ ci lu diiri benn waxtu boo xam ne wax nañ lu bari li ma fa gënoon a yóbbu itam mooy ne lii dama koy yàgga di dox nag juróom-benni weer yi passé yëpp ngi dox affaire yi pour dafa liggéey bu ma bugg a def ci dëkk bi. liggéey boo xam ne dama foogoon ne sax KMC mayor Bensouda dina ma mun a jàppale ñu liggéey ko dem na office ñu toog ñu waxtaan waaye mu boole ma koo xam ne dafa mel ni kooku sawaru ci parce que bi ma demee pour wax a kooku ma waxoon bés mu ne ma naa ñëw ñu toog ñu waxtaan ko. waaye ba ma demee fekuma ko fa ma kool ko mu mel ni dafa fàtte sax ne dañ wa amoon appointment pour ñu waxtaan ko te loolu mooy woon ne ma wax leen ci tuuti mooy ne su leen ko seetloo ku xam Serekunda Dipakunda area bi bu baax a baax a baax dem boori Manjaay Kunda ba Tipa Garaas di ngeen gis am na benn ndox yooni ndox buy dawee mu nga jógee abu nature reserve um, jógee foofu daw ba egsi ba ci BB hotel ci géej googu soo la ñëwee ci Batin Harden highway foofu la connexion bu nekka soo ñëwee nag ci Dipakunda area bi ñun bi ñoo nekk xaleel nekk ndaw ñun foofu foofu nañ ko daan ooyee wayo Dipakunda muy déegi Dipakunda déeg bu xóotoon déeg bu setoon ñun foofu lañ jàngee sax pour pour ni fey buy booy si Serekunda yi booy si Debakunda yi booy si Latrikunda yi foofu ñun ñëpp lañ fa daan daje di sangu ci di fey di sangu suñ paree dem ci gannaaw uti ay mais ay fin la ñoo jël ay nuuru yi dem di nappa jën nga jàpp nag jën yu bari ah nga yóbbu ko kër you know loolu affaire yi géem la woon rek affaire yi xaleel la woon rek suñ demaa defuñ dara dañoo ne ci la ñu dem sangu ji sangu ji ci way bi xam nga Serekunda amul géej loolu doo gannaaw bi dañ daan dem ba géeji Banjul di defa sangu ji mbaa ñu ñëw géeji Bakaw di sangu ji you bi ko sam nga yi fi xaleel rek suñ péréen si loolu lañ gënoon a bañ nag ñu nga dem sangu ji so um, dafa nekkoon place bu nice place bu set you know and uh, man nag bi ma jógee ci dëkk bi in 1999 ma xel area boobu sax parce que area boobu dara ni dafa développé woon daal area boobu area Manjaay bi ngaa gis noonu yoon amu fa yëpp àll la woon waaye bi ma dellu see in 2007 17 ma gis ne foofu APRC government bi ak Yaya Jammeh defar nañ fa defar bu baax ba def fa ay bridge ay ay ay pom pom yu baax waaye bu yàggul laa doon doxantu rek ci suba ma gis ne palaas bi ñu ngi ko tilimala tilimala tilim ñi ñi leen fa ay sànni ay lal ñii ay armol ñi ay tanki moto ba ndox maa ngee daw de waaye ndox maa ngee fata you know dem naa bi tippa gaaraas itam jël naa ay nataal yëpp a ngee daw waaye mu ngi tilim dafa mel ni mbalit lañ ko def so bi ma ko seetee ma ne lii ñu ngi luus ñu ñu ngi ñu ngi yàqal loo xam ne lu natural la àdduna si façon yii la ñu jël defar ko pour seen sit suñ ñëwee lii rafet na lii suñ maam yi bàyyil nañ ko fi su lii dinaa jéem su dee dama ut sax ndimbal ci bitim réew ñu ñëw dimbale ñu ñu clean bi ñu defaraat ko tabax ko su dee dencee dañ cee def artificiel mu nekk loo xam ne sax ñun ñoo koo defal artificiel river artificiel déeg boo xam ne dañ cee dugal jën yu ees ñu dooree ko nag Batin Haden highway dem ba Abuko lii laa doon plan all these six months dem naa ci fu nekk di ko wax dem naa ci ministre si wax naa ko ñoom ñëpp ba léegi you know waaye bi ma ko bi ma demee ci kii um, li ma la wax rek um, Talib ben oo na ma gaayam ñu ko waxtaan waaye ñoom xëj na sax dañ foogoo ne lan la laa fa uti you know ma dem fa sécurité bi ak yooyu yëpp waaye at the end of the day ki ma booleel kooku dafa mel ni sawaru ci xam nga fàtte naa ak turam sax ma ko koolee koolaati ma gis ne sawatu ka mu bay ci laa ne lii nag kon xaaral ma dem ma dis ko government bi parce que soo ko seetoo loolu itam seetlu naa ko. ne su taw taw bi su jotee tay mi taw bi boori nawet bi su duggee bi ba foor ba foor Barton Harding highway bi nga xam ne major de mooy one yoon yi gën a mag ci Gambia bi ci biir Gambia bi tey yoon yi nit ñi moto yi gën a daw bés bu nekk ci biir Gambia bi mooy Barton Harding highway bi waaye naka lañ dee def su nawet bi su nawet bi duggee ba taw taw bu rëy kenn du fa mun a jaar. parce que yoon woowu ndox mi foofu dafa fata because dañ ko tilimal foofu itam lu nekk lañ fa saani so man dama doon ne ku am dredging machine ba pare ñu am fonds nga xam ne dañoo clean génnee mbalit yi ñu fa sànni ba ñu tabax ko ñu fens ko ba pare ubbi yoon bi mu dem boori bii bii hôtel mun naa laa wax ne benn foofu benn ndox du fa toogati lu mu taw taw taw parce que mun nga faa dugal sax submersible pumps ba booster pumps yoo xam ne da koo dugal ci ron pipe bi ngay contrôle flow bi ndox mu ñëw mu sànni ko mu dugg ci biir géej gi dem ci géej gi yooyu yëpp man xam naa façon yi pompe yooyu lañ daan liggéey Amérique dañ daan dugal deep sea well pumps yoo xam ne pour nuclear facilities lañ yooyu yëpp dañ ko daan liggéey xam naa pumps si maa wax ni ku fa dugaloon ñetti oo ñaari sompoms maa ñaari submersible nga nga nga ngay ngay ngay nga xam ne da nga pompé ndox mi muy dem towards kon dafa am easy flow waaye suñ ko cleané ba mu set ñu tabax ko ba mu nice you know dina nekk loo xam ne dina nekk sa tourist attraction because mun nañ koo def loo xam ne naturel la ñun ñooy introduce suñ ndoxi boppa introduce ay jën ba pare di ko protect kenn du fa sànneeti mbalit waaw lii laa demoon pour waxtaan ak Adama Barrow ndaka la gouvernement bi di ma joxe even suñ ma suñ ma jàppalewul sax ñu jox ma permission ma ut an NGO ma advertise ko ñu seet ndax wool bi dinañ ñu mën a dimbale ñu defar river bi it's like a small river du nekk river nag waaye dafa nekk small waterway boo xam ne dëkk bi yëpp dinañ ci kontaan ñëpp dinañ ci proud ba pare ñëpp dañ koo jëf jëriñoo ma dem nag mu kontaan ci lool bi moo njëkkee waxee loolu mu ne moom sax daf doon xelaat loolu mu boole ma ci ideas yoo xam ne sax xelaatuma ko ci woon mun nañ koo tabax ma ne ko waa ñu def ko séep ko bi nga xam ne dinañ ko mun a ubbi ñu am yoon boo xam ne because soo demee man jël naa gaal goo xam ne sax dama ko duga jëlee ko boori bii bii hôtel ñu ñëw ba boori baatin bi xaadee wooye waaye foofu suuf see fa toog waaye ñu ngi waaye dëkk bi léegi am na dredging machines ñu ne ma dis jaañ moo koy use mu ngi tibb suuf saaro gis na ma ko sax wax na ma ko sax moom ci am ne ma jaañ bi mu ngi am dredging machines yoo xam ne suñ ko dredgee génne ko ba mu set suuf si génn fa ñu ubbi mangi yi mu ubbeeku sooy daw sooy daw ci Batin High doo gis dara gannaaw river bu nice buy daw towards bii di hotel te loolu toore si man fekk naa fa. booy yi dee dawal gaal yi ñu ne ma léegi pandémique ba de waaye touriste dañ dee ñëw di navigate di ñëw ba ci ba jegeñ bor yooyu man sax dugg naa fay naa leen ñu indi ma ba jegeñ baatin highway bi yooyu yëpp laa ko doon jéem a waxal dem tàkkoor ne ma waaw dëgg la lii saar wax gu baax la waaye ma ne tam ma ne tam ma ne biñ paree nag ma ne kon ñu wax affaire yi politics waaw euh, moom it you know xam na ne dissident laa woon ñoom ñëpp xamoon nañ ne man. you know impasse bi man maa taxawoon di support di government bi di wane ne Jammeh am na legitimate reason pour challenge results yi maa doon ay against ne économique waru ñoo dugg ci dëkk bi parce que man maa ngi woon United Nations bi économique bi bi ñoo wax ne économique waru duga dugga wax leen yu bëri because dañ leen nax dañ nax ñoo Macky Sall ne fii joolaayee nangu dëkk bi te xam nañ ne loolu du dëgg so um, yooyu man loolu laa doon xeex understand nga so te benn tey maa ngi gis ne ñoom make nañ big mistake along those lines ba pare ñëw nag ci affaire yi TRRC bi tam nga xam ne TRRC bi ni ma ko gisee mooy ne ñi doon jaay waxi saa saa yooyu rek ne jaame yàq rek la fi nekkee woon defalee ko lu baax dafa dafa defut ci lu baax ñoo taxaw ne dinañ continuer yàq googu soo ci lañ ci laa ko ekkati affaire yi politique bi moom muy maa wan ne jubali réew mi rek lañ nar moom Adama Barrow dimba Ibrahima Sankare mu ngi toog moo ma fa yóbbu mu ne ma man jubali réew mi rek moo nekk ci suma xol saar te you know man li ma bëgg a ñun ñëpp ñu jàppalante 2021 élection a ngee ñëw suñ demee trou luñ bëgg a mun nañ koo def pour jubali réew mi you know man nag man ko doon wax itam ne ko sax wax naa ko ne jaame jaama rek la bëgg a moom itam fi mu nekk ñu treat ko like an ex président mu ñëw toog ci réew mi ñun ñëpp ñu nekk a jàmma moo ko gënal you know waxuma ne déedéet waxuma ci dara dafa ma dafa endossé moom juboo la pare moom la te bugga na pour woog ak ñun ñëpp ak APRC pour towards ñu jéem ko re-elect this year ma ne waaw this is a good bargaining chip more or less lii laa doon jéem a bind démba ci suma Facebook page bi parce que dama fa génn rek mu am ku ma call Amérique ne ma hey da nga demoon ci Adama Barrow ma ne waaw kon nit ñi ñu ngi spy li ñu ngi koo wax ci àdduna si yëpp te amoon na time boo xam ne man lii laa doon dox di wër di jéem a ut ay nit ñi mu am ko ko dégg wax ko pandéri pandéri wax yu ñaaw ne man liggéey laay ut man dañ ma war a moytu tam maa lifin te man utuma jowoon benn liggéey lii laa doon dox affaire lii laa doon jéem a toppatoo waaye bi ma demee waxtaan nañ lu paase lii sax waxtaan nañ affaire yi ni dëkk bi de jubo politique yi ak ni ko ñoo def ba dem kanam you know ni ñoo juboo ñun ñëpp ñu bàyyi ngañante bi you know waaye um, uh, li ma li ma li ma wax rek you know bi biñ jógee ci loolu am na yeneen topic yoo xam ne sax dafa génn ci lii yoo xam ne mu ko koo mu ne pour dëkk bi dem kanam you know ak you know économie bi ni moo doxee wax na ma ko li yaakaar ne you know ñu ngi def yooyu yëpp wax na ma ko you waaye biñ fa génnee kontaan na ba ñu ñëpp ñu kontaan ne dinañ continuer ñuy diisoo di seet naka lañu demee kanam together waaye bi ma génnee nag binda naa benn bi soo gisee ma binda dama ragaloon ñu prix irfin ndax ñu nit ñi di foog lii la fa defoon lii la li gis ma pandari mbay li tax sax munatuma liggéeya moom you know because xam naa ne moom moom radio dama ko dañ amandoon to respect rek may su ma amee dara ma bind ko suñu li fi ne waaye moom bi mu déggee ne xaw ma fan la ko déggee waaye dafa déggoo ne rek dem naa maa ngi mit ministre si mo foog ne dama ut liggéey mu ne waa nañ ma moytu man dam suma dama dama yaaxa dëkk bi man risque la yooyu yónnee naa ko audio nag wan ko ne ko man suñ diggante warutoon naa demee noonu ñun dañoo waxtaan ñu ngi amante jàmm maa ngi laa bindal all the time you know ñu gee waxtaan you know yow sax yang ma ne ko yow sax danga daan recommend ne man dama war a liggéey Adama Barrow de ma ne ko man Adama Barrow pare naa liggéey moom ci free bu ma fay sax waaye soo déggee ma ne maa ngi toppatoo li yoo xamuloo li maa toppatoo soo ma kooloon kon dinañ mën a déggoo ma wax la you know waaye kooluloo ma nga oo gars ma saaga naan kii dafa ñàkka dafa sonna liggéey laa ut te demeewul noonu you know looloo tax loolu laa doon bañati moo tax ma ne xaaral ma bind lu kaaw te li ma ci bind soo leen ko seetlee dama wane ne projet la tax ma dem ci Adama Barrow président Adama Barrow projet bi moo taxoon ma dem fa bi déggoo nañ nag te mu ne dinañ ma support dinañ ñu support li li ma bëgg rek ma bindal ko policy paper boo xam ne dinañ support affaire bi nit ñi nag xamuñu nag lan la understand nga waaye um, wax naa leen lan la projet bi maa wax ni te loolu man mooy suma mbébét fi mu nekk wax naa ko ñu bëri ci international community bi every day dañ maa ko looy xaar pour start parce que lii wool bi façon yi façon yi project yi lañ dee bugga di fon ci third world countries yi you know andoon ne jox ma xaalis ma def lii jox ma xaalis ma def lale so that is it you know and uh, so moo tax ma bindee ko noonu wane itam ne waxtaan naa moom waaye um, Adama Barrow wax na yoo xam ne yu rafet la ci affaire yi ne dafa bugg a yóbbu réew mi kanam man itam wan naa ko suma mbébét di ko wan ko ñun juboo lañ bugg ci dëkk bi nga treat Jammeh ni nga ko doon as ex president ni Living naka la tuddaati ni defar ñoom Saadaw ak yooyu and you know dispute ko waxul dara about that so waaye nag bi ko nit ñi riidee xam nañ man suma taxawaay. man wu ma fa pour caaxaan demeewu ma foofu ne dama makuru nekkuma ne dama dem ne dama dem naan ko yesa yaa fi yesa yesa dañ toog ñu waxtaan ba gannaaw gi saam la ma doon traité sax mu ne yàgg xam you know na suma book bi miit miin Conakry you know you know long time ago gannaaw gi la ma gis ci ami bi ne Akilay Samsidine Sarr you know and yow yàgg na di toppa suma affaire and so on man nag definitely man xaw ma ko woon you know waaye bi ma demee waxtaan fi this is the first time ak Adama Barrow face to face waxtaan te biñ jowee connect nañ nag very good te foog naa ne mu ma doon déglu waaye nag daf ma daf ma saf rek bi ma fa génnee daf ma safrek rek ma doon saf te Yaya Jammeh Yaya Jammeh su ma toogoon ak moom dama daan connect am moom mel ni dañ bokk ndey a waaye su ma génnee yàqakat yi door yàqakat yi door. yow yaay déglu kii yow yaay lii yow daa nga yow xam nga kii yow xam nga kële yow xam nga kële loolu nag mooy suma sikaman ne nit ñi dañoo fabriquer stories ñëw taj taj ko ci kaw Kam Samsidine Sané nii la mel te fekk meluma noonu waaw man ba maa dem di seeti xaw ma lan laa doon expect bi maa dem di mit Adama Barrow waaye bi ma demee ci moom réception bi mu ma jox ak niñ connecté ak niñ waxtaanee man itam ma jox ko suma xol li ma ko wax ko li ma xam ne ko pare naa le naa jàppale sax su du affaire yi li ñoo jubale di réew mi waaye man affaire sécurité sax mun naa la cee jàppale ci nag waaw loolu biñ ko waxtaanee yëpp gis naa ne ñu ngi déggoo bu baax ni ma daan déggoo yaaya jaame rek kilifa man su ma toogee kilifa so ku ma xamul rek yaay ñëw di sos nii la saam saamee waaye soo toogee man ngi ñu waxtaan face to face nga déglu ma ma déglu la di nga xam ne kii nit ku ñor la nit ku déggu la nit ku yiw la waaw te loolu am démba waaye bi ma ñëwee na ma bindal suma suma page bi ñu bari kontaan foog naa ne addi démba read na over message yi ma am mënuma ko wax ku nekkaa ngi wax ne sa taxawaay baax na li nga dem ngeen ju dëkk bi juboo parce que xam nañ ni dëkk bi eh, jaxasoo fi mu nekk you know ñi suma ñu ku nekkaa ngi mere wante affaire yi dis transition bi ak TRRC bi kenn rek laa gis moo ñëw binda di wax mooy ñang jaay di wax ne waaw suñ ñu ngee seet be yaaya jàmme egsi ci biir dëkk bi kana yi ñang jaay ñang jaay lan la mun mu ngi mel ni dafa tekku nit ñi ne waaw moom riir na lima ma binda baro waaw lii te ñang njaay mooy ñi nga xam ne ñoo taxaw ne dañoo daaneel baro every day mu ngi ci facebook am page am di xas baro ne baro xamul li moo def baro xamul lu moo yóbboo réew mi so baro ak am na ñoo xam ne dafa influence ñooñu ñu bari ci dëkk bi man njaay man ni ma ko gisee rek ne bari na wax waaye mënut a def dara because musuma dégg loo xam ne Mandiang Njie def na ko ci réew mi loo xam ne dinga ne lii lu baax la oda dan mun naa wax nag yàlla mën na ko jox na ko xeli wax waaye fala la em ci man gisuma dara loo xam ne ndamoo naa ko mus naa koo miit waaye xaw ma woon ne sax moom la woon bi ma ko gisatee Gambia waaw mus naa koo miit Washington DC xamoon naa ne gannaaw gi laa xamee ne xariti woon Yaya Jammeh la sax bi mu amee Yaya Jammeh nekkee Amérique be gannaaw gila la man ba ko koo mit lam ma wax ba ko déggee ci Gambia ak la ma gis dafa ute ci laa wax ne kii typical ndongo la ne kii lim laa wax ak la nekk ci moom dafa ute ñii seen poos rek lañ topp toppa luñ am rek la ñoo ut waaye nekk luñ fi réew bi because li ñoo wax du dëgg ñun mag lañ xam nañ li xew te proof nañ ko bu yàggul lii yaayam ñëw na fi Mrs Ndiaye Mrs Ndour Ndiaye naka naka naka Ndour Ndiaye ñëw na fi di wax ne moom euh, euh, euh, finance minister bi Mamboure Ndiaye naka joxun delloowun jukkal seen famille bi waaw parce que Niang Ndiaye biñ koo def OIC muy fa nekk di am xaalis bu di xëy na ñu jox ko moto jaame bi mu jënd ko at a very cheap price mu ngi célébrer gouvernement Adama Barrow bi mu ngi wane moo fi gën waaye biñ ko génnee you know ñëpp ñëpp xam ne moom dafa bokk ci ñi ñi ñi ñi ñi ñi raket ba nangu alal Yaya Jammeh séddoo ko ñi ñu jaay ko ci la ci la ci la ci la ci la door di wax leneen ba pare dégg naa ko di mu ngay wax ne moom Yaya Jammeh pour mu ñëw ci dëkk bi dañ ko war a takka mbaa dugal ko ci balankaar waaw in cuffs or in coffin loolu la wax ma dégg naa ko soo kooku bugutan kooku buguta jubali dëkk bi kooku reyante la buga ne soo buggee indi Yaya Jammeh ci dëkk bi let's put him in cuffs or coffin nañ ko takka ci handcuff mbaa ñu dugal ko ci balankaar coffin loolu la wax loolu ku ku bugg a jàmm parewu ko te njàng jaay bu te bari ay kenn ñun ay soldat lañ ñun ci ay lañ ñu yar ñun fees nañ dee du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon moom fooguma ne mus naa gis taxaw fees dee ñu bunti dee mosu koo fees xamu ko time impasse bi dafa daw dem Sénégal ñu pare dafa waroon naa toog ci dëkk bi ñu bari nañ toog ci dëkk bi de xaar reyante bi ci biir dëkk bi soo ñii ñooy taxaw ñii nag dañ am seen kàddu ci dëkk bi ñoom ñooy so called intellectual si nga xam ne ñu ngi jéem a wan ne nii dañ xam te xamuñ waaw ñoom lañ war a déglu te kenn waru leen a déglu parce que ñoom tafaar lañ fi nar te nit ñi dañ dañ ci seen nekki lañ am fi mu nekk kafaar giñ bugga pare nit ñi pare nañ koo jël ah waaw every day mu ngi ci lifin moom xam na ne yaayaa jàmme ŋàñña Adama Baro moo sori Adama Baro sori Adama Baro muy ŋàñña yaayaa jàmme mo gën pour ñoom parce que loolu du yóbbu yaayaa jàmme euh, euh, Adama Baro du yóbbu pateem bi fen te Adama Baro dafa bugg a support soo ñoom loolu lañ bëgg ñu dëgëral ci réew mi waaw am na wan o tuuñu ah nañ xaar ba booba ba fi ajaaya jaabe ñoo ñu gis lay xew ñooñu ñu sax xamuloo leen yow dañoo bind si loo xam see ñan lañ waaye ñi taxaw ne suñ su yaaya jàmme ñëwee ci dëkk bi you know uh, moo leen gënal dëkk bi am jàmma te bëgg na ñoo sàmm loolu ñoo ëpp ñuy wax ne bu fi ñëw waaw fi mu nekk ñoo man dama foog ne ñoo ëppa you know waaye taxaw rek ne ñoom ñëpp dañ li yàq seen xol mooy TRRC bi parce que TRRC bi moo ñëw di wax rek ne yaa jame lu bon rek la fi def dafa fa lu baax te loolu ñun ñëpp xam nañ ne lu dëgg te fen la def na fi lu baax you know dafa def at the limitation of li moo li waaye amoon na nag encounters ba kaa dafa mel ni euh, li ma la wax ne military government la woon gis nañ Rollins Jerry Rollins fan yii ñu one wan Jerry Rollins ba mu demee TRRC ba seen TRRC bi dañ ko jox respect jox ko ona waaye Ghanaian su bëri dañ doon wane dañ ji war Jerry Rollins rey ko parce que Jerry Rollins ba mu toogee nekk président dafa rey ay président yu président yu passé rey ay judges rey yu bëree bëree bëri Ghana pour taxawal rek li bëggoon Ghana waaye Ghana dañ ne ci dëgg la ko defoon parce que Ghana koroptoon na korop boo xam ne gannaaw gi toute doo ko mën a jënd ci seen bitik yi waaw basic things doo ko mën a ja Ghanaians si dañ daan ñëw Gambie du fi ut si liggéey ndi corruption bi nekkoon euh, Ghana time yi balaa jëre loon si di ñëw so Ghanaians si dañ gis ne as much as ne military government la woon defar na réew mi defar boo xam ne saa saa yi doon jël alali ja dëkk bi di ko dugal ci seen poos stop na ko you know léegi gaana moo tax li lee Ghana naat waaye dexul ne Ghana eh, eh, Jerry Rawlings dafa dellu si waat nekkaat président na you know try na lu nekk dafa waaye emale nañ ko because time am dafa passé waaw te léegi man dama ne bii golden opportunity la pour not only APRC waaye NPP waaye ku bugg a jàmm ci réew mi ñu exploit lii ñu ñëpp ñu juboo dem kanam waaye dafa am saasaay yoo xam ne ñoom xam nañ ne pour ne nañ leen prosecute Yaya Jammeh it's just like yéen a ngi follow di philosophie ne fii joolaay dañ nangu réew mi kaay leen leen mun a reyee ñu rey leen te loolu du fi loolu loolu du dëgg du yoon loolu du dëgg du yoon moo tax ku nekk a ngi am sa idea about naka la ñoo demee réew mi te demeewul noonu su man ci gàttal li ma wax rek mooy ne um, uh, ñu man suma taxawaay mooy ñun ñëpp ñu work towards ñu juboo ñu nekk benn ñu respectante dëkk bi dem kanam waaye suñ ne kaay leen ñu continuer xeex bi xeex bi bañ ko commencé yàgg na you know amoon na time boo xam ne kenn ñeme ñu taw wax affaire Yaya Jammeh ci dëkk bi parce que bandi yëpp a ngi taxaw saa saa yëpp ngi taxaw intellectual bandits yëpp a ngi taxaw di ngaññe rek ne kii di foo dara pour ne dañ ko war a jàpp dafa yaaxal réew mi waaye déedéet ñoom ñun xam nañ liñ bëggoon noonu na Yaya Jammeh ñu jàpp ko waaye pour sàcc alalam gi ak yu bon yi ñu doon def moo tax bëgguñ mu ñëw waaye yéen soleen leen ne Yaya Jammeh dafa commit crime oo leen ko mu ñëw ngeen taaj ko ci TRRC bi ni ni ñu defoon Rawlings mu ñëw ñu ñu taaj ko ci TRRC bi ne ko kaay explain sa bopp waaye ngeen ne bu fi ñëw su ñëw nañ ko takka mbaa ñu dugal ko ci balankaar mu dee mu ñëw soo yéen loolee naa nëbbu loolee naa daw. parce que xam ngeen ne ñaawteef yi nga am na ñoo xam ne suñ toogoon ci TR su Yaya Jammeh toogoon ci TRRC bi su leen uññee kon seen duñ jarati dara ci réew mi waaw bi ñoo jaay alelam yi ñu wax ne dañ ko siis amuñ court order te loolu lañ waroon naa def ba court bee ko stop soo ñaawteef yooyu ñoom ba tàmbeeru ñaawteef yooyu kana ko kana ko waxoon kana ko xam ñëpp a gën a stoppee ko te you know ñii nag ñiy taxaw ni xam naa ne suñ ceeñoo gouvernement bi dañoo def kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey again maa si Adama Barrow ak ñi xëy na ñi taxaw ndi ko support dañ leen naa lynch ñi ñi nekk ci gannaawam di liggéeyam moom di ko wan yow lañ support wen ñu ngee préparé rek su time bi jotee ñu ne buxar ñe daw abal ko niñ def yaa jaame into la ñooñu dinañ leen spare waaye ñi toog bokkaa moom dinañ leen dal ci seen ko fi mu nekk Sidi Ndiaye ngi nii moo dafay liggéey Yaya Jammeh ba last days you know waaye politique danga ngaa evolve da ci politique you know ñëw na ba gis ne li gën ci réew bi li gën ci moom ak lim buga moo mu dem liggéey Adama Barrow ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw waaye kii Ñang Jaay barka démba maa ngi dégg mu ngi defar benn audio xaw ma vidéo la di wane ne mbooleem ku daan liggéeya Yaya Jammeh te liggéeya Uh, Adama Baro Adama Baro daf leen war a dàqa waaw yéen kooku foog ngeen ne naral bugal na Adama Baro lu baax te Adama Baro ngi kontaan ne ñi moo liggéeyal ñu ngi koo dimbale man lii la ma wan dimbale ne ñi koo liggéeyal ñi moo liggéeyal ñu koo dimbale ñu ngi yóbbu kanam soo ñan la ñan la wax ne ñan leen war a dàqa ñoom Mamboure Ndiaye Mamboure Ndiaye mi nga xam ne yaayam dafa ne dafa war a doole parce que ñoom ñoo doon jàppaleen Mamour Ndiaye Eh, Mambore Ndiaye biñ ko Yaya Jammeh jàppee ñoo ko daan yóbbu ci ñoo ko demoon ci sëriñ gi di ko utal lii di ko utal lële léegi dafa jàppane doomam yi doomam yaa ngi nii amatuñ liggéey waaw lii lële soo ñoom pour seen doom yi la ak seen famille yi rek la fa nekkoon bu njëkk te loolu réew mi dafa passé loolu suma doom jeeg suma njaboot dafa war a passé loolu léegi dañoo ne réew mi la soo moom mu ngee wax ne ña fay ni ni ñi Adama Barrow di ko liggéey parce que xëy na Mambore Ndiaye mi ñu yaakaaroon ne. daf leen naa delloo njukkal because seen yaay yeeg seen papa yee leen doon jàppale joxu leen njukkal joxu leen liggéey bu baax joxu leen place bu baax soo léegi ñii dañ war a génn ci système bi soo li bon ci Adama Barrow système am bi yëpp mooy ñoom amuñ ci dara moo tax waaw ak kan ñoom Omar Faye Omar Faye ama eh, eh, doon liggéeyal Yaya Jammeh ak kan Tàngara Alaaji ñii dañ doon liggéeyal Yaya Jammeh ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen politiciens yu bari dañ doon liggéeyal Yaya Jammeh siidi Ndiaye mun naa jóg dem ci Barrow ñu ne dafa bon waaye keneen mun naa jóg dem ci beneen parti ñu ne dafa baax loolooy lan loolu du wax gi maa ngi gis suma collègue bi euh, euh, kii naka la tuddaati Modou Bojang you know Mejo Bojang mu ngi dem mu ngi nekk UDP just recently you know ngañe ngañe ña euh, ngañe Modou Bojang fii ne moom la doon defaral Yaya Jammeh ku ko xam amut saaga buñ ko fi saagut waaye ba mu demee UDP kenn waxu ko ñëpp a ngi kontaan ne ñëw na UDP politique ngeen ne nag politique bi nag waaw na demee benn boor rek waaye bu mu demee beneen boor loolu nag moo yëfi saasaay mooy waxi saasaay yi maa wax you know so man gis naa ñang jaay rek laa gis ne moo binda di wax naan bés bu fi kii di tëkku daal daf doon tëkku daal mu ngi seet ba Yaya Jammeh ñëw fi you know xam nga loolu bu baaxul yow waruloo wax loolu di teku nit ñi you ba pare man dama foog ne gars yi ñu bëree ngi toog ni foog ne ñu ngi eh, Adama Barrow ñu ngi tam ñu ngi foog ne ñu ngi koo jàppale dañ ko nax parce que li ñoo wax ci moom di ko daaneel di daaneel barkeem di daaneel mun-munam di daaneel xam-xamam di daaneel am-amam ci TRRC bi kenn waxu ko dañ ko waroon naa wax fii lañ indi benn jànq mu bi ñoom solo Sandeng seen démonstration bi bu police yi ñëwee ci kër gi pour di leen ut Adama Barrow dafa daw dugga ci ron lal wi ñoom jigéen ñi ñoom ñoo doon jéngu police yi you loolooy la lay gën a lana gën a sawal sa président like that ak ñi coow nii yëpp nañ ci Adama Barrow loolu ngeen waroon naa oo te dégg naa ne story boobu du dëgg ñu ne ndaw soosu daf doon fen waaye kane ko wax because ñii ñooy li ñoo wax bukki sangoo dëri war Adama Barrow di ko wan naa ñoo la bugg a fekk ñoo la gën a bañ parce que loolu kooku waroon nañ ko koone ana évidence bi mbaa trac bi ñu ne leen ana évidence bi su ko fil ñu cléa ko ni mu taxawee parce que ñëpp a ngi gis Adama baro il fact bi mu ko wax Essa Faal mi yaakaar di coow bugg a tas réew mi mu ngee cox coxe di ree ana kan la Adama baro te nekkul ne ndaw si daf ko rëcca ñoom dañ doy toog waxtaan na ñi ba pare ñu wax leen li xew ñu ne ah li nga bugg a wax waaw kaay wax ko just like um, hanalinga wax rek mooy ne waxi kii bi naka sonko interior Minister bi mu ñëwee joxe testimony ñu ko wax affaire yaaya jaame lu bon ci moom although ñun ñëpp accept nañ ne jaame mututon waaye mu leen naa wan ne jaame bonutoon bon bi ngeen ko foog da ngaa dem nga waxtaan ak moom ngeen d'accord yéenay dina def yoo xam ne dañ koo mislead rek dañ koo wax ne la nit nit kee ñëw fenal ko waaye soo demee nga setala ko ko dafa dellu gannaaw ñu wax loolu ba pare mu gis ne Sonko taxaw na ci coobareem ak dëgëram mu ëlbatiku naan ko waaye yéen sax ni ngeen def ci affaire yi three years jot na bi waru leen koo def lu soo Essa Faal lu mu bëggoon three years jot na bi ñu bàyyi leen ñu taar réew mi police dem toog di leen seetaan moom ministre of interior yooyu su leen yooyu jaaxalut yéen mi toog di xool réew mi kon yéen li ngeen a def ak li ngeen a wax nekkul ci yéen waaw parce que doo leen mun a toog fii naan dañ bugg a réew mi dañ bugg a Adama Barrow ñuy def yu ñaaw yi ñu nga xam ne mel ni da ngeen leen ragal ñooñu waaw Sam Sarr ñëw di wax ne rek waaw juboo laa ut ngeen naan waruta wax loolu Yahya Jammeh dañ ko war a def lii yéen kon utu leen jàmm ci dëkk bi yéen bugg leen réew mi ñoom Baba Gale ñoom Essa di wax na su Adama Barrow defut lii ñoom duñ ko nangu kenn oowu leen ñooñu ñëpp ñu ngi baax parce que ñu ngi leen a wan ne man jàngakat laa dama am degré yi dama am lële waaye bëgg leen naa gis ni ñii dëgguwuñ ñii yàqakat lañ bëgg leen koo gis waa bi ko Sam Sarr moom xam naa ne ñu ngay gis rek ne kii moom you know duy ànd ngelaw li fu moo fuuf du ma mun a ànd ngelaw li fu parce que yeneen ngelaw lu paysin ngeen day fuuf moo du ma mun a ànd ak fi ngelaw yi fuuf all the time man nag li ma leen wax rek man du ma dee toog di seetaan xamoon waroon ngeen a yaakaar ne Sam Sarr du mun a toog di seetaan li non non non non way jaama rek lañ bëgg ci réew mi ñun ñëpp ñu juboo am na ñoo xam ne sax kool nañ ma démb ne ma saam Sarr yaa ngi waste sa time Adama Barrow will never respect anything loo leen agréé moom towards Yaya Jammeh ma ne ko déedéet yow foo ko wéer waaw mu ne ma waaw da ngaa seet Adama Barrow time bi bi ñim lifin bi coalition bi nim leen lii la ma ne ko coalition bi coalition ba lañ planoon ak yooyu yëpp dafa dafa dafa dafa dafa yaaxu ci seen loxo parce que ba coalition bi di plané dañoo dem élection soobaale wuñu woon ne économique dina ñëw ci dëkk bi things dinañ change ni moo war a change you know Sénégal dinañ am involvement bi you know ñëw to de extent boo xam ne understand nga ñoom yi neen soo gisee mënuñoo déggoo ki lee ngi xëccari jaar na le kële lañ d'accord woon yëpp mënuñ cee juboo looloo tax you know te ku nekk da ngaa jéem ut pour sampa sa drapeau boppa Adama Barrow itam dofut moom itam dafa jéem a protect boppam bi mu gisee ne dañ ko bëgg a génne ci stock bi teg fa keneen dafa bañ looloo tax nag soo soo soo loolu nag soo ko gisee ne loolu euh, jàmfaa la kon yow xam loolu jàmfaa parce que man mag du fecce yal naa dee kay ñu ànda man may nga ne nga ñu ànda ci lifin ñu dem ba ca yoon ba mu óor na ne lii ku dugga mucca ku dugg du mucca nga ne ma naa la bàyyi yow nga dugga man ma ma ma toog ci biti loolu nit nit melul noonu sax parce que nit ki ku nekk da ngaa protect sa life loolu la soo ñoom fight bañ doon fight ca beginning ba loolu boobu itam ñoom li ma laa wax rek ñoom njàngjaay mi ngaa gis ni yëpp biginin bi gis ngeen niñ meloon ci dëkk bi di dawal di coo ñoom njàngjaay di joxe toog fële di beet waaye léegi da ngeen ko déggaati amatuñ dara ñu ngi ñu ngi ut liggéey fi mu nekk léegi nag bëgg nañ gis nañ ne Adama Baro joxoon na leen liggéey defuñ fa lu baax yaay may génnee nañ leen léegi ñu ngi bëgg pour génnee Adama Baro teg fa keneen xam nañ lu Adama Baro di jéem a def pour mu ko yóbbu ko kanam dinañ ko yéem a yaaxa su Adama Barrow nag xamoon lii dina seeti ñeneen xarit oo ñeneen ñi moo déglu du moy ñu waa parce que ñi ñu ngi wax lu nekk in fact ñu ngi wax affaire yi victime si nag victime si Yaya Jammeh victime waa kanay victime Yaya Jammeh victime boo ma jox mun naa laa expliquer na la xëy na lu nekk am victime li Mama Singaate wax mu ne ñii dañoo seet ñi ñu rey ki rey lañ foog ne moo am right waaye ki ñu rey kooku amul right victime boo ma indil mun naa laa wax xale benn benn nag victime boo leen indil mun naa laa wax lu tax ñu fii kooku li ko def victim te dañ ko war a seetaan ñu ne ñu ne all eh, eh, eh, ma tik one or two things all um, uh, naka la tuddaati Solo Sandeng la jël ma jël exemple Solo Sandeng Solo Sandeng wan Solo Sandeng du Gambian nit ñi xam nañ loolu two Solo Sandeng nit ku nit ku ñeme ña la woon rek nit ku am fet ñu ne kilee jàmbaar ay jàmbaar xamal ci lu mu ko wéeroon waaye you know tri solo sandeng jàngut xamul dara dañ ko nax parce que dafa toog ci dëkk bi sasa ya nekk bitim réew gën ko muus ne ko kaay ñu fay la nga dem taal Gambia kaay ñu jox la xaalis nga dem taal Gambia amul liggéey amul dara yaakaarul dara mu dem ñu jox ko xaalis boo xam ne xëj na ba mu juddoo benn tey musta gis ah, ah, alal gu mel noonu mu ne waaw suma affaire ëlifin na xaaral dem taal Gambie foo ko fit bu rémba rek li ñoo wax fit bu rémba waaye ci nu wa acc bi ko bind ci bugam bi mu ne mu ne naka la tuddaati ah, nit ñuy moytu ñi dee moytu di ñu naan ñi lay ragal yi ñoo dee toog ba mag jàppa seen doom yi àndal leen yóbbu leen ba ca bàmmeel ya di leen wan bàmmeel yi jàmbaar yi gis nga bàmmeel bële jàmbaar diw fële te jàmbaar diw fële la fa jàmbaar fële du dunda be am njaboot duñ dee dunda be am because seen fiti yi daf dee rémba lu stupide lu nekk pare nañ ci duga pour wan seen jàmbaar yaa because moom daf doon jaay jàmbaar yaa rek waaye li doon wax de ñoom seen gars yi léegi ñëw ne ñoom faa lang ñoom Baye Sankare ñoo ñëpp wax nañ ne li solo Sandeng doon wax ne dañoo am electoral reform te xam naa xamul lanay mbiri ne electoral reform sax parce que ku jàngut xaw ma naka ngaa xamee electoral reform ñoom jublu woon woon ci loolu dañ leen fay Sénégal lañ leen indil xaalis bi pour ñu yow taar réew mi mu mu mu da mu mu dee ci soo taar réew mi nga dee ci yow victime nga suñ taaloon réew mi xamul ñàkk bakkan ñoo cee dee buñ care about loolu. ñoom Baalo Kanté ma jël another person toog Liberia reyante fa ba reyan rey doomi jàmbur yi biir Liberia over two hundred thousand nga jógee foofu sonna ne kay ñu dem yóbbu reyante bi Gambia dem Sénégal ngeen plan dugga si Gambia bi njël novembre 1996 ñëpp a ngeen nelaw ngeen dugga soldat yaa ngeen nelaw ngeen kof seen fetel di leen fetel di leen rey di leen rey benn almost six of them ngeen rey leen cold bloodedly you know maa ngi wax Sajin Jaata dafa moom sax njël la mu ngi jógee di dem ci jumaa ji mu ngi sol kurusam gaa ngi ci baatam bi sax soo ko fekkee fi mu tëdda you kooku ñu ne waaw rey yooyu yëpp du dara rey yooyu yëpp ñooñu seen joboot yi kenn waru koo wax mbaalokante bi ngeen ko jàppee da ngeen ko dóor da ngeen ko kik soo mbaalokante victime le ñun mi ko doon dóor ñun lañ war a tëj waaw victime boo leen fi indi nag waaw waaw Baba Diop dañ ko rey Baba Baba Diop ñu ne moom moo fay moom moo foom jongula si moom moo kaasoo benn spanish moom moo benn ñoo ko foom ne leen liñ wax loolu lañ wax ne moo dem leen nii la ñoo reyee ñu ne dañ leen daal di yóbbu sax ci àll bi ñu gis ko xam ne rek you know is is somebody loose person ñu rey ko just to teach them how to rey you know ñu ne Baba Diop moo def loolu so Baba Diop ñi ñi ñim reylu kenn xamu ko soo moom suñ ko reyee kanay victime ñoom duur Thiam ñoom ñëpp xam nañ ne Ndour Thiam ñoom ñoo organise euh, dat dat dat li fi naka la tuddaati coup last minute bi gars yi taxaw mu daw bàyyi leen fii ñu ne Daba Marina ci lañ ko rey waaw Daba Marina ki la ngee wax ne euh, Lamine Silla buñ ko buñ ko yàgg bu indi fii bu yàggul mu mu ne gaan Ghanaian yi ñoo wax ne dañ leen rey ba daa Daba na moo leen doon wax fan la ñu jëlee Ghanaian bi pour yóbbu leen pour ñu rey leen soo kanay victime ba pare Ghanaian yi ñoo wax itam ne dañ leen rey ci dëkk bi abaar kenn xamul nomba bi bentey tey ku nekkaa ngay laajte one million US dollars fi Gambie government bi jëlee xaalis boobu kenn xamu ko waaw ñu ne ñooñu. almost ñaar juróomi nit ñoo xam ne dañ ne sarne la ñëw nañ ku nekk a wax story boo xam ne dafa utee motamam li mu wax ci benn story kon te ku nekk dafa fenloon sa morom soo kan ngaa jël nga ne kii mooy wax dëgg nga def sa nga def sa loi kan nga ko def Eric nga xam ne moom dafa dafa escape mu ne bi ñu ñëwee dañ ko doon dóor sàccee ñu jàppaleen yóbbu leen tëj leen Martin Cherry moom dafa ne bi ñëwee Banjul dañ leen doon fetel you soo ñu dugaat ci gaal gi dellu dem wàcca baara loolu waxi dof la parce que yow doo ñëw ba Banjul ñu leen a fetel nga dugaat gaal ne xaaral ma wàcca baara pour ñu fetelaat leen pour lan ba pare moom bi moo wax sa affaire yi station police station bi mu doon wax foofu lañ leen doon interroger de police station ba mu wax xaw ma caaroy la wax ay Sénégal la nekk Essa Faal ne dafa def mistake Kairaba la bëggoon naa wax mu dee Caaroy xaw ma Caaroy RFM euh, ci seen xaw ma Caaroy la am na turi euh, police station bu mu wax mu ne euh, Eric Yao dafa sorry Martin Thierry dafa mis mistake Kairaba la doon jéem a wax mu ne Caaroy waaye matin Thierry musta wax affaire yi Kairaba Bundung station la doon wax ni foofu lañ ko yóbbu kii kii keneen kii. Um, am di pa Amady Diallo Amady Diallo mu ne ma moo dem ares kii naka la tudaati Tunkara moom moo Tunkara moo ko ares bi ke nekk ci police station bi ne déedéet moom moo dem euh, ci marine unit bi ares Tunkara euh, kii Tunkara kii ne mu ngi arresté Tunkara Westfield kële ne ma ngi ko arresté ci ci marine unit bi kanay wax dëgg ngeen bugg a sukkandiku ci loolu nag ne yéen ci dëgg ngeen a pare taawal ne dañoo ñëw pour victimes si ñu fay leen ak perpetrators ñu prosecute leen including ñoom Sam saar because dañ dóor Mballo Kanté loolu amul fenn loolu kenn du ko nangu ñu ne ñu ngi jël suñu lawyer te suñu lawyer si man su American lawyer laa am ñu ngi leen jël ñu ngi taxaw di ñu xaar bi bés boobu fi ñu jëlee naa ñu ne ngeen ne ñoo ñoo yaa jame soo ko bëggee indi leen ko ngeen prosecute ko moom mu mun jël looyaam ngeen seen seen évidence su nonsense yi dina taxaw fan ci benn koot xam ngeen fen soo juboo moo ñoo yóbbu kanam ay ñàkk gi ngeen nekk nag xam ngeen ne seen jànga yi du leen jëriñ dara ci dëkk bi yéen a ngi xaar gouvernement jox leen liggéey ngeen squander alali ah, dëkk bi loolu ngeen bugga soo leen buggee ngeen xam ne da ngeen bugg a jàng am ngeen jàng ba ñor xom bitim réew a ngi nii dem leen jàngi tubaab ngeen jàng dem leen ci dëkki tubaab yi ngeen seen da tubaab bi dinañ leen jox liggéey kenn du leen jox liggéey ngeen naa ngeen dugalante ay ak yooyu UN moom dëkki dëkki cagala pour intellectual naka intellectual naka la tuddaati west yi foofu la ñoo dugalante jox sax ñu jox leen ko waaye nekku ne da ngeen am xam-xam boo xam ne dafa outstanding ah ba leen ko na xam ngeen génn UN ne da ngeen a ut liggéey ci yeneen réew yi ci private sector bi or anything kenn du leen jël parce que xamu leen dara mënu leen dara gis nga fi ko euh, lawyer bu ñu ne euh, la jàngee doo ko gis ci dëkk bi mun ngaa gis lawyer euh, Angleterre mun ngaa lawyer ka waaye ah dafa ñor xam xam xam xam xam mu ngi niroo nga ne docteur Amérique waaw docteur dañoo ñor xam doo ko fi gis ci fii yëpp ci Amérique dëkk bi. dem naa London dem naa Ghana dem na Sierra Leone waaw di nga di ko yooyu dem naa Nigeria waaye du Amérique parce que foofu da li nga jàng pour nekk lawyer doo ko mun a nekk fe fii soo kaleen ñu wax dëgg gi man nag foofu laay wax you know li ma kontaan rek démba am na feedback yu baa ñu bëree bëree bëree bëri ne dëgg dëgg taxawtaay bi nga waxal pour jéem a ngeen juboo jaame ngeen Adama Barrow juboo jaame dëkk bi dem kanam loolu rafet na trop li ci ëpp yëpp 99 percent bi yëpp loolu lañ ma wax waaye you am na wan percent bu am na nag naka um, eh, five percent boo xam ne ñoom ñoom dañ ne óoluwuñ ne Adama Barrow dina fulfil dina dina dina dina dina sàmm baatam waaye man ni ma ko dégloo démb nuru na ma kuy war a sàmm baatam su ma waree agréé man moom unless saasa yi ko wër ñoo jéem a yàq parce que déggoon na wantaay mu dem ba fooñi xaw ma fooji la xaw ma muy wax ci rali moom pare pour jox Yaya Jammeh amnesty mu ñëw dëkk ci dëkk bi ñu treat ko like a former president you know because moom mu ngi seet boppam ñi ko wax bu fa jaar yëpp ñoo mus ñoo nekk président waaye mu ngi moom mu seet boppam xam ne moom sax war na ko nit mutut président benn président mutut te président mistake gam du mistake gi ku nekkut président mistake yi président dafa nekk lu rëy rëy rëy ku ko seet mun na la cee jàpp ku ci seet mun na la cee tëj ku ci seet ñaareel ba mun na la cee rey mu ngee seet ne moom su jógee ba jeexal mu ne ma saar gis nga toogu bii du ma fi mujjee mukk te suma fi paree dama bugg a dellu ca nit ña lii la ma wax démba dama bugg a dellu ca nit ña waaye or soo already nit ñaa ngi koo fexeel naan am na ñaawteef yoo xam ne dinañ ko dinañ ko ci jàppa su paree dinañ ko ci jàppa ne moom guuram gi moo ko def te moom la waaw soo moom moom gis na li xam na ne definitely li gën ci moom mooy ñu juboo te xam ne rek you know su you know um, mun naa jàppale jaame ñu dem kanam waaw li ma laa wax rek am na 5 percent boo xam ne ñoom dañ ne déedéet um, yaa kii du sàmm baatam waaye man foog naa ne dina sàmm baatam beneen 5 percent bi des nag ñooñu ñoom dañ ne. waru fee am du fi am tey tu du fi am ëllëg te pare nañ cee teg seen bakkan te ñooñu nag ñoom nañ pare jaay seen bakkan yi waaye parce que ñoom ñu ko suñ bëggee jaay seen bakkan yi am na ñu taxaw pour jënd quoi waaw suñ bëggee jaay seen bakkan yi ci loolu mais you know Adama Barrow su fi waree def loo xam ne dafa jubale réew mi pare nañ cee teg seen bakkan yi kon nañ pare because am nañu koo paree jënd waaw seen bëgg jëkkër bakkan yi pare nañ ko ñu koo jënd ñooñu nag ñu néew lañ soo buñ buñ buñ ci ragal buñ ci tiit man foog naa ne jubluwaay bu baax la te ñun ñëpp duñ mun a toog di seetaan lii mu dem kanam you know te bu kenn ñëw di ma wax naan Sam Sarr noppil noppil yéen xam ngeen wax naa leen ko démb ci suma man nekkuma pas pasin boo xam ne su ma gisee loo xam ne you know mun naa cee dara damaa toog di ko seetaan naa def ba fu ma lu ma munut suma ma munut ma bàyyi ma xam ne nag try na waaye munuma yu know dafa am suma benn ticca bu ma naan wax ne ma bi maa nekk college mu ne ma Sarr man quoi mu ne ma nga jéem nga jéem dara sottiwut moo gën nga ragal la jéem parce que da nga ragal ne du sotti waaw mu ne nit ki soo gisee dara nga ne lii dama ko bugg a defar waaye xaaral ma jéem su sottiwut moo gën ki nga xam ne dafa ne he lii xam naa ne baaxul bugga naa ko defar de waaye ñeme ñu ma koo jéem parce que su ma ko jéemee du sotti yow da nga ragal bum sotti moo tax bugguloo jéem mu ne ki jéem nag sottiwul moo gën foofu ki ragal a jéem parce que ragal na ne su ko su su jéemee dina di dina sotti man nag façon nit kooku laa ragal lu ma dara pour jéem ko su sottiwut sax mun naa toog ne jéemoon naa dafa sottiwut rek parce que li ma gom dama ko gom waaw. saa-saa yaa ngi nag toog you know ñoom ñi nga xam ne seen àdduna yëpp dafa revolve around ne antaay jaame rek lañ loo def te demuloo against Yaya Jammeh seen àdduna du baax kenn du leen déglu duñ mun a defar dara seen boppa ci loolu la ñoo sukkandikoo ci loolu la ñu ut liggéey ci loolu la ñu dundalee seen njaboot yi ñooñu nag dafa dafa jafe pour trop ñu gis ne Yaya Jammeh dafa war a ñëw ñu treat ko ne président la woon ñu jox ko cëram ñu continuer dem kanam ñooñu nag ñoo fa taay waaye man foogu ma ne dinañ eh, ci liñ liñ taxaw dina sotti nit ñi bugga nañ leneen lu dul seen xay wi ñu bugg taal ci dëkk bi waaw te fii laay emale suma kàddu gi ba ëllëg su neexee yàlla maa ngi leen a gërëm di leen sant you di leen wax ne ngeen endoo jaama waaw te yal nañu yàlla musal ci weeri koor bi waaw ñëpp ñu jekkale ko li ci des baree bareetut xam naa ne <clears throat> fi mu nekk joolaa yi sona ne trop ci koor gi am na ku ma wax ne saa you know soo demee fooñi su five o'clock jotee dañoo jël xale yi ne leen ñu yéegal malaan yi ci kaw pour ñu nëba jant bi ñu ñu ñu ñu dog you know so <laughs> dama leen a tooj rek sama gars yi waaye anyway thank you very much indeed li ngeen ma déglu nii ba salaam ba next time